noo ngi tolloon ci buntu ak tasawuf sëñ bi tàmbalee ko ci li bayit di sëñ bi wax ca tasawudu subaan mooy tabihu fi anna diina allahi aqsaamuhu jiimun bila ishtibaahi awaluha al imaanu wal islaamu baadahuma al ixsaanu laa tanaamu fa awalun yasixu bitawxidi والثاني بالتفقه الحميدي وصحة الثالث بالتصوف فالجمع واجب بلا توقف كأنما التوحيد في ذا الحال روح لدين الله ذي الجلال وجسمه الإسلام والإحسان لباسه الذي به يزدان فوفو سرين بي لير الفن الدين جي ji ñetti xaaj la ñetti xaaj la yoo xam ni boo ko awaluha al imaanu wal islaamu baadahuma al ihsaanu la tanam mooy xaaj bu njëkk bi mooy imaan xaaju ñaareel bi mooy islaam ñetteelu xaaj bi mooy ihsaan loolu nag mooy xadis suyidna jibril ba nga xam ne borom xam-xam yi moom dañ koy tudde ummu sunna ummu sunna nga xam ne mboolem diine jëpp da caa daje ndax diine génn ñett yi sëñ bi benn mu nekk loo xam ne wàllu pas-pas lay doon benn mu nekk loo xam ne wàllu pas-pas lay doon nga xam ne ña koy jagoo di ko jàngale ñoom la ñuy wax ulama wu mooy lépp lu am ci pas-pas rek ci ni ñuy gëmee yàlla ak ni ñuy gëmee malayka yi ni ñuy gëmee gëmee téere yi ni ñuy gëmee yonente yi ni ñuy gëmee bis penc ni ñuy gëmee ab dogal loolu xeetu xam-xam bu yaatoo yaatu la mooy tawxiid moom la ñuy wax tawxiid na xam-xam bi koy jàngale moom la ñuy wax tawxiid borom xam-xam yi koy jàngale ñoom la ñuy wax ulamaawu tawxiid waaye ci xadis bi moom imaan la ci ñëwee imaan ndax sayyidina jibril alayhi salaam dafa ñëw laaj yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lan mooy islaam ci benn riwaayaat yi riwaaya yaakaar naa eh, ahmad ibnu hambal wala muslim waaye am na yeneen riwaayaat yoo xam ne waaye Buxaari imaan la jëkke da laaj lan ma imaan ginnaaw mu laaj ko lan mooy islaam ginnaaw mu laaj ko lan mooy ixsaan nag foofu nag ca mujjug xadis ba yonente bi dafa wax ne fa innahu jibrilu ataakum yuallimukum diinakum maanaam jibril moo ñëw doon leen jàngal seen diine te ñu gis ne maanaam maanaam ci la borom xam yi balloo ne kon kat lépp diine mi ngi ci xadis boobu ndax da ko laaj lan mooy imaan ak lan mooy islaam ak lan mooy ihsaan laaj na ko beneen laaj nag mooy kañ la saaxa mata saaxa loolu it borom xam-xam yi fi ne ni gis naa yooyu borom xam-xam boog yoo xam ni dañ cee ballaloo beneen xeetu xam-xam mooy ahdaasu saaxa mooy yi xew njëkk bis penc te loolu eh, boo ko yëree lañ ci bind ku mel ni alxabib eh, al mashhur ibnul mashhur yaakaar naa tudde ab yamani la mi ngi dund ba léegi sax gis naa mu def ci ay gëstu yu yaatu yoo xam ni daanaka comme da ko jàppe xam-xamam boppam xam ne moom jàpp ne xam-xam yi yëpp ñett ñeent xaaj la li ci soxal diine moom mooy ñett yi rek moom bu njëkk bi mooy wàllu iman ni ko suñ waxee awaluhal imaanu imaan nag mooy jàngale mbooleem lu aju ci wàllu pas-pas rek jëmmi ni ñuy gëmee yàlla rek fi ne dafa yaatu neen ko xamee lu bari fi de Sëriñ bind na ci lu bare bari mawaahibul naafi mawaahibul quddus ak yeneen yu bare bari yoo xam ne bind na ko ci kon pas-pas lu yaatu la xaaj boobu nag moo koy jàngale wàllu iman xam-xam bi koy jàngale moom nañu xam-xamu tawxid ñaareelu xaaji lislaam yi mooy awaluha al wal islaamu baadahuma al ihsaanu ñaareelu xaaj bi mooy mooy mooy mooy islaam islaam nag mooy wàllu jëf yi mboolem liy cër yi jëf da ci tàbbi mooy aljaanibul amal yi te mooy xeeti jaamu yàlla yi ak muamalaat yi ibaadaat yi ak ak mboolem lu aju ci jaamu rek nga xam ne cër yi ñoo koy jëf moom nag moom la waroon xam yi tudde lekk ilmu sharia leen léeg moom lañ ko tudde léeg-léeg ñu tudde ko fiq fuqahaw yi ñoom ñooy ñooy ñooy ñooy jàngat ñoy jàngale ñoy yitte yittewoo xam-xam boobi waaye ci biir xadis bi dafa am beneen lu ci yonente bi tudd al ixsaan mooy jibril da ko laaj lan mooy ixsaan mu ne ko al ixsaanu an allaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak maanaam ni mu ko tekkee bokkut ak tekkiwul baat bi lugawiyan fi ne moo tax borom xam ne kon maana islaahi la moom lañ jublu mooy dafa am luñ jublu ni nga xamé né iman fee tekkiwul li baat bi tekk rek dafa am luñ ci yublu ndax yoonte bi da ko léral moy tiri, nga gëm yalla gëm malaika yi gëm téré yi gëm ki ni itam yu non la waxé ci ihsan motax xam-xam bobu nga xamné moy ihsan nak mom moy jangalé al jaanibu ruhi al qalbi moy walu ruh ak walu xol ni ko yonte bi an ka annaka tarahu man jaamu yalla bu yaangi jandok mom ngi mom nit ku tak munuko xol bu tak munuko li fek sa xol amna yu ci boof ci ay xeeti jikko jangoro xol yoy li fek mi ngi ci yow do mën manam mushahada loolu moy moy mushahada xama même ci ci al ashhadu ngay wax ashhadu an la ilaha illa al ashhadu ashhadu ara <laughs> wala bokkut ak itam eh, bokkut ak itam ataqidu wala yi doon yooyu shuhud shuhud nak mom lañ soxla deug deug te boo ne ashhadu teew teew suhuud dara suhuud nekkul ci yoo xam nga yaa ngi seere neen shahadatu suur la loolu <laughs> day bañ a jaar ci baat yi ndax waaye li mooy mooy mooy ngir nag sa xol set ba waxtu wu ne mu mën a lu màgg suñu borom gi nga xam ne da ngay ànd ak maaya suñu borom yi suñu borom mi nga ànd ak ñun wa huwa maakum maanaam bokkut ak nun ànduñoo nun ñoo nekkut ak moom waaye moom mi nga ak noonu wa huwa maakum bokkut ak nahnu maahu loolu ñaar yi bokkuñu dara mi ngoog aynama kuntum kon wàllu goog yi nag nga xam ne mooy mooy jàngale ni ñuy defare xol génn ci mbooleem jàngoro yu bon yëpp ak xeeti sikki xol yi ba nga mën a teewlu sunu boroom ba àgg ci mel ne waxtu ne da nga janloog moom waaw loolu mooy martaba bi gën a kawe waaye fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak loolu mooy martaba bi mujj mooy boo ko mënta gis nga maanaam nga nga nga nga bàyyi xel ne mi ngi lay gis loolu ba tey du ceegeen ñépp koy def am na ñoo xam ne dañuy dox rek waaye bàyyiwuñ xel ne yàlla mi ngi mi ngi mi mi ngi gis li li ñuy def lépp di ko xam mi loolu nag jaamu yàlla googu nag boo mel ne yaa ngi ko gis dafa am dafa am lu ciy juddoo ay xeeti axwaal xaal yu bokkut xaalub zuhdu xam ngeen ne bokkut a xaalub xaalub masalan ragal yàlla yooyu yëpp ay axwaal la yoo xam ne bokkuñu yëkki leleg mu yëg aduna lepp soof ko lolou day am ab xaal la ay leleg itam aduna saf la ngay keur keur ngir lijeenti mbiru aduna fi ne leleg nga am jamono yo xam da ngay yëg ragal go ragal yalla nga xam yalla da ngay tit ci sa bop ak sa ëlëk da loolu xaal la axwaal yooyu nak jaamu yalla yi ñoko jur nit ki bu jaamu yalla bari bari am ahwal yo xam da jaar ci mom lu melne ne ak khawfu ak yene demee ak euh, sabru ak shukru ak yu demal yooyu maqaamaat yooyu ñoo maqaamaat yaqin léegi axwaal yooyu nag di di juddoo foofu ak azwaq yi dañuy wax azwaq wajdaaniya yoo xam nit ki da koy da koy yëg moom dund ko ci xolam nga xam ne wajd la looloom ñi nga xam ne ñi ko mos ay mbir la yoo xam ne gaa yi gaa yi yàlla rek ñoo koy mën a mos wax dëgg yàlla xam nga nit ki nga xam ne doxul fenn baxul benn jéego deful genn jaamu yàlla boo xëy suba nangam amul xam nga kooku moom duma sax lañ ko war <laughs> mana yow ya dulu dulo adamul wujdan la yadullu ala adamil wujud dulo amul ken amuko dulo gisul ken gisuko ko ya, waaw la léegi nak lol nak da leen jural ay maqamat ay tollu way maqamat yi moy masal léeg ñu tollu ci maqamu sabr xam li lii lii lu yomb expliquer la waaye léeg nga tollu fo xani muñ ci halu muñ maqamu muñ nga tollu hal ah, mo lo xam day ñew ko dem bu saxé nak lañ ko maqama te léeg nga nga nga toll jamono yoo xam ne masalan adduna da lay soof waaye léeg-léeg mu dikkaat adduna sawaat la mbir mi neex la bu dee nag ba adduna soof la nag dëkk nga dëkk ci nag loolu mooy zahid nga yow mooy adduna moom yaa ngi jëflanteeg moom nii waaye dara neexu la ci loolu yow zahid nga li feeg muy dem ak dikk nag xaal bi dem ak dikk loolu ñu tudd loolu axwaal loolu mooy axwaal yëpp la sabru itam noonu la léeg-léeg muñ muñ lu te fekk yow mënoo muñoo dëgg-dëgg boo dee nag ba di ab muñ ko dëgg-dëgg nga xam ne lépp lu xew rek moom mu maanaam nga delloo ko ci yàlla xam na yàllaa ko def nga muñ loolu yow maanaam saabir nga yow quoi cha chukru noonu la lool mooy maqaamaat yi maqaar yooyu maqaamaat yooyu nag am ulum a bi nag am nag ay xam-xam yu leen yàlla baaxee itam yoo xam ne bokkut ak xam-xam yi ñu jàng ci téere loolu am noom ndax aswaaq yii nii fi ne buñ ci duggee ndax bunt bi ñu dugg nii bunt tasawul dañ ci indi yu bëri bëri yoo xam ne xam ne yii nii ñoom yu maanaam yu leen yàlla baaxee rek la ñu xam ko léegi yii ma wax nag moom la wax tasawuf maanaam ihsaan mooy jaanib ruux yi alqalbi bi nga xam ne wàllu xol ak wàllu ruux su ko nit ki buy jaamu yàlla la ciy juddoo ci ay axwaal ak i aswaaq wujdaaniya ak ay maqaama mooy tolluwaay yi yooyu noonu ak xeeti xam-xam yi nga xam ne yàlla leen ko baaxee ñoom ñiy yëngatu ci wàllu googu ñu jàngalaat ko nit ñi xeeti maana ndax masalan xam-xam yi du xam-xam bu yees bu bokkut ak bi fi nekkoon sariya rek la waaye dañu am ay dégg-dégg yoo xam ni tey ci ñoom rek nga koy dégg waaw fi ne sayidna ali ibnu abi talibin wax nañ ne mas nañ ko laaj ndax daa am lu leen lu leen yéen ahlu bayt rasulillah ndax daa am lu leen yonte bi jagleel mu ne leen mu ne déedéet yàlla amul leen lu ñu jagleel maa xam-xam benn la waaye nag fahmu waaye waaye nag am na fahmu goo xam ne yàlla dina nu koy baaxee moy deg go xam dañ koy am ci ci ci ci ci ci mahani yo xamni ci ñoom rek nga koy degge ci bir aya yi ak ci bir hadith yi ah, nit yalla itam lool la lool mi ulum wax bi lool nak jaanib bobu nak moy tasawuf lool moy tasawuf nga xamne lele <clears throat> nga deg ñu tudd ko ñu ko xaqiqa masalan am ñatt yu ñu wax sharia ak tariqa ak haqiqa waaye yëpp dañ ci ñëw incha allahu taala gaa yi koy yi koy yi yi nga xam ne ñooy ñooy gëstu wàllu génn borom xam yi ko yi nga xam ne ñoo koy gëstu ñoom la to tuddee as suufiya ñoom la ñu tuddee as suufiya kon lislaam ñetti xaaj yi rek la ni ko sëñ bi waxee awaluha al imaanu wal islaamu baadahuma al ixsaanu laa tanaamu loolu la ko jeexle lisan iman moo ci jiitu mooy xam-xamu tawxid bi nga xam ne moom la borom xam-xamu tawxid yi di di di gëstu dañ bind ci lu kenn xamul ci ay téere alquran it boko sedle danaka du genn ñett yi danaka daanaka bu de fiqh itam nono ñaari lu xajj moy islam moy fiqh fiqh moy mboolem li cëri jëf ak jëflante bi dox diggante nit ñi jëfi sahiri ay ay ak naka lay rek naka la aje màkk ak yu dem noonu loolu mënu wax fiqh xam-xam bi koy jàngale moom la ñuy wax fiqh ñi koy jàng borom xam yi koy jàngale moom la ñuy wax ulama bokk alfuqaha ihsaan nag mooy ñetteelu laaj bi nga xam ne mi ngi ci biir xadis boobu te yonte bi nee na ci maanaam maanaam fa innahu jibril ataakum yuallimukum diinakum nga xam ne ci diina ji la bokk moo tax ihsaan muy tasawuf ihsaan mooy tasawuf tasawuf mooy xam-xam bi koy jàngale ab xam-xam la boo xam ni tey bu fekkee ne yëroo delluwaayi tasawuf yi yow waroo cee mën a wax sax wala ngay saxal mbaa ngay weddi xam-xam la ni fiq amee ay delluwaay am ay am am ay téere yoo xam ne fii ak jàngoo ko waroo mën a wax ci fiq tawxid am ko noonu la tasawuf amee loolu te loolu danañ ci ñëw bu yaatu yaatu insha allahu taala maanaam xam-xam kon damay bañ jiitu waaye kon xadis boobu moom moom la sëñ bi junj fii nga xam ne dajale na mboolem xaaji dina yëpp kon tasawuf ab xaaj la ci diine ji boo xam ne mun ca ñàkk képp ku ko neenal eh, sëñ bi wax na ko maanaam jafe jafe-jafe xol di nga ko bari maanaam tasawuf mooy wàll goo xam ne boo ko neenalee jëmmi sa xol moom faw dana bari ay sikk yu yu koy dëkk yoo xam ni yow man xiyam da nga fa dem man nga faa dem am jafe-jafe am na fa ko sëñ bi wax yaakaar naa masalu ko ci naan maanaam koo neenal na maanaam eh, xaaj bu njëkk bi te mooy eh, maanaam islam muy wàllu fiq ku ko neenal moom fii lañ lay raye moom ndax yow boo bàyyee julli ak xeet xeet kii loolu moom baa moom xudaat yi ak bu lislaam lislaam bu dee atteem yow dañ la daal di fàtt yow léegi waaye boo boo neenalee wàllu wàllu tasawuf na moom ëllëg yomul xeyam ngay am jafe-jafe loolu yaakaar naa mooy li sëñ bi wax ne zahiruhu l muslihu lil amali wal batinu l muslihu lil ahwali فأول باسم تفقه دعي وثاني عنهم بتصوف وعي ثم تتقديم الفتى الفقه على تصوف وجوبه قد انجلى فمن إلى إخلال الأول انتمى هلك في الدنيا بحكم علماء علماء موم دا فا بولي فا زال واني خم خم نياري نياري خير خم خم خم خم ظاهر اك خم باطن خم خم ظاهر بي موي دافار مبولم جيفي جيفي خم خم باطن موي دافار ميروم بير تما خول ak yi aju ci xol loolu nag moo gën a mat a yitewoo fi ne suñu borom wax na ci alquran wa daru zahirul ismi wa batinahu batinul ismi fi ne moo gën a doy waar zahirul ismi masalan zahirul ismi mooy ngay naan sàngara ci mbedd mi nag yéne ne batinul ismi mooy nga rëy masalan ak nga yëg sa bopp ak nga iñaan masalan wala nga soxar yu ne deme xeet yooyu moom jàngoro yoo xam ni mën naa dëkk yow te doo yëg ne def nga ko xam nit ki rëy du yëg mukk ne rëy na fi ne nit ñi xam ne kii ku rëy la rek waaye moom du ko nangu fi ne mukk moo tax mu doy waar moo tax nag mu ne bu njëkk bi moom xam-xamu zahir boobu nag boo ko neenalee moom fii ci adduna lañ lay faate moom fa man ixlaali fa man ila ixlaali la walin tama halika fi dunia bi xukmi al ulama wa man yakun bi thani za ixlaali yahlika gadan bi xukmi dil jalaali maanaam tasawu moom boo ko neenalee ëllëg da nga da nga da nga sànku fi ngay sànkoo mooy day bari daa bari yu ñuy wax ñoom sew-sew yoo xam ni ci ñoom rek nga koy dégg waaw ci xeetu sikk yi nga xam ne mooy mooy ak wàllu sellal masalan nekk nga def ba sellal ki mën naa jàpp ne mi ngi sellal fekk moom ci ngistal la ne gu rëy ñoom dañuy gis nag ñu topp sew-sew yoo xam ni yoo xam ni eh, maanaam ci ñoom rek nga koy jàngee wax dëgg yàlla kon loolu mooy mooy mooy mooy ñetti xaaji diine ji ni ko sëñ bi waxee fa awalun yasixu bi tawxidi wa thaani bi tafaquhil xamidi wa sixatu thalisi bi tasawufi fal jamcu waajibun bila tawaqufi sëñ bi nag da ko misaal waaw ah, foofu moom mooy li ma waxoon li ma doon wax rek moom la leerlaat foofu mooy imaan buñ ko waxee tawxid moo koy jàngale mooy xam-xam bi moom lañ ko tuddee islaam nag fiq moo ko jàngale ixsaan na tasawuf moo ko jàngale kon suñ tubaabam tasawuf ixsaan ixsaan da ko firee tasawuf kon wa sixatu thalisi bi tasawufi fal jamcu waajibun bila tawaqufi maanaam yëpp da nga ne war a boole war ngaa yittewoo wàllu ngëm wala ngaa yittewoo wàllu eh, maanaam yi ñuy jëf ci sa cër yi xam ko waaye war ngaa yittewoo itam xam-xamu tasawuf fii ba tey ñi ngi wax ci xam-xam fi ne masalan fi ne tey tawxiid dafa am xam-xamu boppam boo xam ne danga koy jàng jàngale la yàlla ci moom ak amam ak yi war ci moom ak yi jomm ci moom ak yi ni demee loolu yi ba tey ay madaris la ci biir am murjia am ahlu sunna wal jamaata bu ñu ko xam ne asaira mooy mooy suñu pas-pas nga xam ne moom lañu jàng fii am eh, asaira yi ak ñi dëppook ñoom ndax maturidi ñoom ñook ko asaira yi wuute wuñ benn lañ maanaam ixtilaafaat yi am seen diggante yëpp ixtilaafaat lafziya la amna kuma gis mu boole ko ci ben téré bu gàtt ci bër bi ñu wute maanaam wuté wuñ dal ci gàttal waaw maanaam ñi depp ak ñom bu ko defee itam ak lu melni khawarij ak ak eh, mu'tazila yi xam lool ay madaris la kon ci bir ci bir ci bir eh, iman ci bir tawhid fi ne boo demee itam non dafa am ay ngir fi ne ca njëlbeen amoon na lu ma ngir yi demoon ba xawa jégué téméré ngir fi ne yi rek ñofi dess ci lañ xam ci ahlus sunna wala juróomi bokk te mooy shafiiya ak ak malikiya ak xanafiya ak xanbaliya ak zahiriya zahiriya ba tey ñoom ahlu sunna lañ mi ngoog zahiriya ahlu sunna lañ te des nañ fi mel ne am nañu fi am nañu am nañu askanoo ci ñoom ba léegi ne tey lay sub nu saad ak awsaax yeeg ñoo ñëpp ay boroomi ngir la ñoon daanañ ko lim ba mu des ba mu àgg ci téeméer waaye ñooñu seen ngir ñu ci bari seen ngir bañ fi jógee la fi la fi jógee amuñu ay dongo yo xamni ñoko ñoo ko yalla dafa def na leen ñom ñu am dongo yo xamni ñoko ñoo ko te gis nga dañu wuté seen digënté fi ne nun ci Malik barna na lu ñuy def lo xamni masalan tay bu ñuy julli Shafii mom bismillahir rahmanir rahim da japp nda mën ta ñak mom moom deful mom sax julli baxul <laughs> nun nak dañ ko sip <laughs> fi mom do ko defa <laughs> bare wuté yu bare bare loolu nag ni mu amee nga xam ne école la loolu moom du lu am solo maanaam du wute yi amul solo daal te kenn waru ko bañ sax nag ndax maanaam déggiin la kenn ku ne am na adil la fi ne kon ku ne bu loo xam dalil bu mu am da koy mën a nangu fi ne am na ko ci alxuraan am ko ci sunna gis nga noonu bu ñu yul la ñu yor seen loxo am na ñoo xam ne dañuy aj seen loxo te kenn ku ne ma nga ak ay ay adillaam ak yeneen muy dem léegi loolu nag ba tey xaw naa am ci ci tasawuf waaye bokkuñu tasawuf amul ay ay mazahib yu wuute maanaam li ñuy def lépp lenn la ci fépp waaye tariqa yi mooy wuute tariqa mooy ki lay ki jàngal kilay lay kii day jaar ci day am anam gu muy jaamoo yàlla goo xam ni ba mu ko doxalee as diir yàlla defal ko fataw yonente bi digal ko mu di ko jàng mu jaar la cay gaay mu mu woo gaay ne ñoo ku ñëw mu jaar la foofe ne suudi itam jeneen jamono xeyna na yoonam wee ndax jamono ju ne ak ak li nga xamne mo meuna defal a duñ bokk xam nga ene jeneen jamono ñew am ku am wenen yoon wo xane yok na ci tuti ci lekke defon wala mu wañ ci tuti yaa ngi deg momu yonte bi ne ko diggal ko gaay mu ku ñew mu diggal la ko fi tay bo gisee masalan tarixa yi ñoo bokk lu ñuy def ene tay tey man ko no wax fi yaakaar naa euh, wird yi xam nga tarixa ko waxe ci tasawu moy wird wi rek lañ jublu daanaka ku ci amul wird duñ la tudda tariqa fi ne tey cheikh euh, cheikh sidil muxtaar al kunti ci nit yàlla yi gën a mag la bokk mooy yeesal qaadiriya fii ci fii nii ci gox bi gox yii nii àggoon na ci di di di jële ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam waaye gis nga moom kenn du ko tuddal tariqa ndax tariqa Cheikh Abdou Khadre Jeylaan ci la nekkoon ki nga xam ne sorewuñ lool lool mooy si ku mel ne Cheikh Ahmad Tidiane masalan gis nga ñu koy tuddal tariqa te moom te te te ma te ndax dafa am dafa am dafa am dafa am wirdu boppam boo xam ne bokk dëgg ko kenn mi ngoog kon bu dee ci tasawuf ay masharib la am ay masharib la am waaye itam jëmmi wird yi itam masalan boo gisee yan lañ li ma doon leeral te leeral te àgg àggalewul mooy bu ñu seetloo ci tasawuf wird yi benn lañ masalan fi ne tey boo demee ci wirdu qaadir ñoom laa ilaha illallah la ak istixfaar ak salaatu ala nabi ak xasb xasba la ñeent yooyu la boo demee saadali laa ilaha illallah la ak istixfaar ak salaatu ala nabi saadali sala laa ilaha illallah bi nag junni lañ ko def ñoom naasir yi ñoom ñoog saadali benn lañ maanaam li saadali def dañ ko def ci suba te duñ ko defaat ci ngoon gi boo demee tijaan ñoom it ñett yooyu la ñuy defaat istixfaar salaatu ala nabi laa ilaha illa ñoom bu ci ko def masalan suba gi nga xam ne kon li ñuy def nii lenn la maanaam sëriñ si nga xam ne ñooy sóob nit ñi ñoo ñoo wute tarixa yi loolu rek la yi li ko wutal mooy yow boo nekkee xaadir wala ngay tijaan wala kii mooy lee ngay def ne wuta nag li kii di def lim yi rek nag ñooy wute waaye li ngeen def lenn la mooy laa ilaha illa la ñuy def ak istixfaar ak salaatu ala nabi saxal ko bis bu set mu nga ñu jox la ko te ki la ko jox di ko di koo xam da koo jëlee ci ku jëlee ku jëlee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga moo tax kon jëmmi tasawuf amul mazahib comme ni ko ni ko ni ko fiq ni ko fiq noonu amee ak yeneen yi ay mazahib yuñ mën a wax déedéet ñoom wuute bi sax ci ñoom la gën a waaye fi ne boo xamee tasawuf dëgg-dëgg xam nga ñi xamul tasawuf moom sëñ bi ab xam-xam la ni ma ko waxee nii ko sëñ bi waxee nii ab xam-xam la boo xam dañ koy jàng incha allah bu ko kii mayee danaa indi maanaam maanaam maanaam téere yi nga xam ne mooy seen delluwaay yi gën a mag yëpp incha allah ak borom xam-xam yeeg yu waaye waaye waaye waaye masalan tey tey tey ci biir fuqahaaw yi am na ci ñoo xam ni dañuy jàdd yoon di wax yoo xam ni kenn anu ci ak ñoom ba ci jàng alxuraan rek dañuy gis xiraat sadd am na yoo xam ne tey boo ko jàngee sag julli ci maliki dañ la xam ne loolu sag julli baaxul xam nga loolu am na maanaam loolu nag du tax nga ne jëmmi mboolem ñiy jàng alxuraan ñëpp seen seen mbir baaxul ndax nangam nangam dafa am ci ñoom koo koo xam ni <laughs> dafa am xira asaza seetlu nga quoi tasawuf noonu la demee tasawuf itam suñoo wax ne diw sàngam ci biir tasawuf def na nangam wala wax na nangam kon tasawuf baaxul xam loolu moom ku am xel du ko wax mel ne biir jullit ñi xam nga gis nga jullit ñoo xam ne dañuy def lu kenn xamul ci ci ci mbon am na xam sax la ñuy def dañ ko askan diina ji masalan maanaam di rey nit ñeeg def yu kenn xamut di jël alal nit ñeeg jàpp nañu ay jaam ci jamono ji am na waaye ñooñu la ñuy def du ca génn lislaam moo digle lool loolu ñoom seen ni déggin la yu bon ci biir lislaam seen moom nga tasawuf loolu moom moom am na ko kon maanaam jëmmi wàll yi ma wax ni fu ci ne ay njuumte ma na am ci yenante nit ñu fay askanu san tawxid xam nga mu'tazila yi ak murji ay ñoo ñëpp ñoom la ñu tudde ñoo xam ni ahlu sunna dañu wax ne ñoom dañu am ay njuumte ay sikk yu mag yu wax yoo xam ni ku wax desu la boole ci ahlu sunna ahlu sunna nag bu ñu ko waxee ko xam ne mooy ahlu sunna bu ñu mooy mooy asaira maanaam delluwaay yu mag ye boo ci demee bu ñu waxee asul ahlu sunna ñoom lañ jublu loolu du samay wax xam nga loolu waxi mag islam xam nga fi ne ñu bari ci noonu dañoo yoratul maanaam da ngay dellu ci téere yi nga xam ne barki dem lañ ko bind nga xam ne sama classe gi benn bu dëgër fit moo yor rek <laughs> yooyu boo ci dellu doo xam di xew daal ci lislam mi <laughs> nga ko waaye li ma bëgg mooy jëmmi tawxiid boo demee da nga fa gis madaris yoo xam ni ay loolu day am ay madaris sax nag même ahlu na nii ne dafa gis seen biir ñoo xam ne man ngaa gis koo xam ne ko doy waar la waaye tekkul ne mboolem lim def daa dañ koy delloo ci ahlu sunna masalan mazahib bi itam noonu la day gis faqih boo xam ne day def lu doy waar waaye tekkiwul ne fiq lépp noonu la maanaam faqih bi ak fiq da koy teqale tasawuf itam ak mutasawif bi ak suufi bi dañ leen teqale fi suufi bi mooy ki nga xam ne mooy dund tasawuf kooku du ceegin lu mu def rek ci tasawuf la bokk fi ne ndax tasawuf moom moom ab xaaj la ci diina ji boo xam ne yàllaa ko jàngale ci alquranul karim di ko tudde taskiya moom la suñu borom di ci biir dégg nga euh, sunna si yonte di ko tudde ihsaan borom xam nag bañ ko dajalee ñoo ko tudde tasawuf tasawuf nag teel teel teel naa feeñ lu ci mat xam la fi ne euh, ci مثلا يونت بي صلى الله عليه وسلم بيم في جوغي كنا خامنا دين جي دا تامالي ام اي مبير اي اي اي, أي جو يو بري ام جوي نك بوم امي نك دا ام نيو بير وون ньо خامنا ньо ديم غوي تي لاج نيكون مان دا موجو خما سيدنا ابو بكر مو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موم يغو في نياري ات لا سيدنا عمر موكو xam nga Seydina Omar moom ci ci jàkka ji dañ ko faat ka ko faat doonte moom am majuus la waaye Seydina Ousmane ma moom gis nga foofu jafe-jafe tàmbali ba biir këram lañ ko fekk xam nga caw ko ay jaasi ba sedd guy ci xalifa xalifa amiru amirul muminina <laughs> Seydina Aliyu mi ko wuutu gis nga moom it ci jàkka ji lañ ko lañ ko faate mi ngoog foofu nag la mbir ma nag moom moom nag da tàmbalee jaxasoo nag politique dugg nag dawla umawiya ginnaaw ba ñoo ñoo fi ne te gis ngeen ñoom seen seen jafe-jafe ak ak Seydina Aliyu ak njabootam ginnaaw ba dawla abbasiya ñëw chia yi nga xam ne moom ñi nga xam ne ñoo ñoo gënoon a ànd ak waa kër Seydina Aliyu itam gis nga ber seen yëfi bopp muy chia dawla umawi moom ak nas bu moom lañ fa doon dunde mooy ñi bañ sayidna aliyu ak ak ak ak njaboot ga nga xam ne na aliyu moom am na lu xaw a jege juróom ñett fukkaat yoo xam ne dañ koy rëbb ci biir manabir yi nga xam ne kuy xutba booy jeexal faw nga wax ci moom lu ñaaw rëbb ko yàlla ko yàlla wax <laughs> nag bi mu amee nag mutaso yu fay man li ma jàpp mooy ñoom ñoo jékki-jékkoon beru ca njëlbeen maanaam ñu ne ba adduna si dugg si surtout nag Dah mujjoon ñu fu ñu ubbi bërëb yu bare bari alal ñëw xéewal ñëw am nung ñu jëkkee beru ji woon nag nekk ci la yonante bi nekkoon te daa ko digle loolu ibnu khaldun noonu la ko waxee même sëñ bi sax indi na ko borom sëñ euh, Thiel Mouridiyé ci danañ ci agsi incha allah ibnu xaldun ibnu xaldun indi na ko ci muqaddimam bi wax na ña desoon nag ca la yonante bi bay nekkoon di dund maanaam dëddu dé dégg nga ak sax ci sellal ak def ngir yàlla ak yéen deme euh, te bañ dugg nag ci juyoo yeeg yii nii ñooñu mooy mutasawifa li lay jox misaal lu bare bare la masalan tey Sufyaanu Thawri Sufyaanu Thawri <clears throat> mi ngi fi jóge atum jun téeméer ak juróom benn fukk ak benn ci gàddaay gi 161 te borom Lumma <clears throat> ak borom al fatawa wal hadithiya ak safwatu sifwa safwatu safwa sifatu safwa bok bu ibnu jawzi yëpp ku ñom ñep tud nañ ne sufyaanu thawri daana wax ne lawla abu hasim haasimin suufi ma araftu daqaiq ar riya abu hasim suufi de ci la ci bul won ak mom duma xam mukk sew-sew yi ne ci ngistal ngistal ay ay sew-sew da jene ne waaw yoo xam ne ngay mën jàpp na yow ngisaloo fekk yaa ngi gisal gisal ay ay degré ay ay maratib yaa ngi dégg Sufyaan Sawri moo wax loolu te Sufyaan Sawri bi muy faatu nii xam nga 161 la kon ginnaaw xamoon na ko ñëw ko suufi ak suufi kon boobu tasawu mu amoon na moom bu yàgg-yàgg am na lu ko jiitu masalan Alxasanul Basri mi nga xam ne mi ngi faatu atum téeméeri fukk 110 ci gàdda gi moom borom Lumbax ak borom al Fatawa al Hadithiyya muy al Haythami ibnu Hajar al wax nañ ne daan wax ne raaytu suufiyan fil mataaf muy fi ñu wëri kaaba gi dama fa fekk ab suufi fa aataytuhu shay'an fa qaala ma'i arbaatu dawaaniqa takfiini nee na dama gis ab suufi ci fi ñuy wëri kaaba gi ma am lu ma ko bëgg a jox mu ne ma man kat yor naa ñeenti fifteen ci ci ci misaal te loolu dana mu sëkk maanaam te ki wax wax ji muy xasanul basri atum cent dix la ci gàddaay gi la ci la ci la ci la faatu kon moom it ginnaaw neen raaytu suufiyan kon maanaam booba suufiyan gi yëngu fi woon xam nga muy dem am na ko ñuy wax musaawiril warraaq nga xam ne saa'ir la kuufi bokk ci ashaabul xadis ndax mboolem eh, borom sunan yëpp nettali nañ ko nettali nañ ko xadis mooy ibnu maaja ak nasaayi tirmisi ak na ak eh, abu daawud ak muslim imam muslim sax nettali na ko xadis waaye gis nañ moom ci waye mu wax ne tasawwafa kay yuqaala lahu aminu wa ma yaani tasawufa wal amaana walam yurid il ilaha bihi walakin araada bihi tariqa ila al xiyaana nga xam ne waa ji dafa nekk tasawuf dafa suufi suufi li fekk maanaam tasawuf yitteelu ko dégg nga yàlla itam yitteelu ko ab bunt rek la ko def ngir mën a ngir mën a war nit ñi ak ngir nax ni ni maanaam te moom mi ngi faatu atum téeméer ak juróom fukk kon moom tasawuf boobu moom amoon na xudóor tàmbaloon nañ ko wax yàgg na yaa ngi dégg léegi tur bi nag dinaa ko wax lu bare bare tur bi day am ñoo xam ne dinaa ne tur bi mooy mooy jafe-jafe waaye loolu incha allah dinaa ci ñëwaat tur tur moom du jafe-jafe ci ci mel mbir parce que mboolem yi nga fi digg ne ay fiq ak naam yu ci bare bare amutoon jamono yonte ba waaye la muy wund mi ngi fi woon sallallahu alayhi wa sallam waaw jamono yonte ba xamuñu woon yu bare bare ci xam-xam yi ñu sos ni xamuñu ko woon incha allah loolu dinañ ci ñëw ci bu gën a yaatu kon loolu mooy <clears throat> li sëñ wax sëñ bi nag misaal ko misaal mu leer moo xam ne maanaam amul lu ko gën a leer ka annama tawxiidu fii dal xaali ruuxun li diinillahi dil jalaali wa jismuhu l islaamu wal ixsaanu libaasuhu alladi bihi yasdaanu libaasuhu alladi bihi yasdaanu dafa wax ne sëñ bi dafa misaal jëmme xaaji diine yooyu ne mi mel ne jëmm ne tawxid nag mooy ruux gi tawxid moo mënta ta moom li ngay def fi ne boo doon jullee ka jàpp ka def tasawuf yëpp fi ne tey boo demee ci yeneen diina ji léeg-léeg am tasawuf tasawuf mooy koo xam ni dafa bàyyi lépp ngir wut yàlla loolu am na ci diina yëpp fi daanaka fi waaye ñooñu maanaam seen mbir kenn leen jàpp fi ay ab suuf yi di ndax ndax maanaam ruuxu diina ji mooy ngëm gi yàlla a gëm yonent yonente bi sallallahu alayhi wa sallam rasulullahi sallallahu alayhi loolu moo nekkul ci ñoom kon maanaam ngëm mooy ruuxu mbir mi moom bu jëm moom mooy ruux ga al wa jismuhul islaam jis yaram wi nag yaram wi xam nga yaram wi ruux bokkul yaram wi moom ruux gi da koo dëkk yaram yi nga xam ne moom la nit ñi gis nag ruux nag noonu duñ ko gis xam nga yaram wi lañuy gis yaram wi ñuy gis nag nee na mooy islaam tey ki nga xam ne tey du jëfee dara ci mbir lislaam yi nii kooku moom jëm jëmmi lislaam maanaam jëmm jaa fa nekkul mën naa mu gëm yàlla maanaam mu am li ñu bëgg wax libaas maanaam maanaam colka maanaam yaramu neen itam xam nga ne moom rafetul maanaam yaram day sol dara boo solee nag waajtaay wi wi nga xam ne mooy waajtaay bu nga xam ne boo ko solee am nga waajtaay bu jekk nee na mooy ihsaan maanaam bu doon jëm moom jëmmi jëmm ji nga xam ne mooy mooy jëmm jëmm ji nit ñi gis kooku mooy islaam ruux gi ci biiram mooy iman waaye nee na yaram wi maanaam li koy sàng col col gu rafet col gu taaru gi nga xam ne moo koy moo koy eh, man suturaal teñ man koo xool te tax ndax fi ne tey masalan nit ñi yàlla da leen a bind fi ne dañuy bëgg lu lu lu set ak lu jekk te xale boo xam ne rek da nga koy solal yére ba mu ba mu jekk nii fi ne bu ñëwee ci mag ñi mag ñi kenn dañ koy gaaw a nangu kenn kon da koy fob waaye xale boo xam daa taq tuway ji mu yàq ko fee nanga lool <laughs> xale boobu mu fi ne ku jege daanaka da nga doo doo bëgg mu jege seet nga ne mu masalan tey jëmmi diine ji nag ni ko sëñ misaal ni misaal am solo la maanaam col gi nga xam ne moo koy taaral loolu nee na mooy mooy tasawuf libaasuhu alladi bihi yasdaaru nga xam ne ñett yi benn mën ci ñàkk maanaam jëmm ji boo ko amul tey bu fekk lislaam ci da ko da ko cee bëluwut moom yow mbiri moom moom mboolem jaamu yàlla yi teg nga ko suuf jëflante bi itam noonu maanaam yow sa diine moom da nga koo wax ne man jullit la waaye nit ñi duñ ko mën a gis ndax yow amoo jëmm jëmm xam nga bu fi nekkul nit ñi duñ a gis ne am nga am déet ruux gi itam mooy tax jëmm ji dox di dund tey ngëm bu fi nekkul jëmm ji daa dund loo def jëfi lislaam ji itam bu ci ruux gi nekkul mooy ngëm yàlla boo ko amul yow maanaam jëmmi kese la joo xam ne ak dund amu ci da ngaa dund ci moom mel ne ku dee waaye nag li tax nit ñi mën koo xool nag loolu nag mooy tasawuf loolu nag lu am solo la mooy fi ne tey ki nga xam ne tey am na ñoo xam ne dañuy am ngëm gi masalan danañ am jëmm ji muy lislaam ji waaye nag duñ soli yére dañuy raflewu maa amuñu tasawuf moo tax seenub jëflante ko jëflanteeg ñoom rek daanaka ndax war ma lañ doon am masalan ak i teggin maanaam tasawuf lépp teggin la daanaka teggin yooyee nag tey bu feeñul ci jëflante rek dangay gis fi ne tey ñi nga xam ne tey boo doon ci tasawuf dangay gis ñoo xam ne wax lu ñaaw nit yàlla gi gën a mag defuñu ko muy dara moog la moog naanam ndox ñoo ñoo yem ñoom <laughs> maanaam gis ngeen ci ginnaaw rek jamono ci ginnaaw ginnaaw ay wax yo xam benn bo xam day wax maanaam wax yu yu ñaaw yu kenn mënta netli ci kilifa yu bax yi nga xam ne moo ci rew mi <coughs> te waji mo ma yegul ne def na dara mom man nun ñi fi ne kenn ku ci waji wax lu lu masalan si rahman bi rek bo juuman bo nar ci wax am sabaan yow sa boobu da ngay dat tit <laughs> fi ne da ngay tit waye fi ne tay ñeneen ñi nga xam ne ba tassu ba lu ngi ñoom yoy du len titel dal la bëgg wax motax kon ñett yoy benn mën ci ñàkk la ko sëñ misaale ka annama altawxidu fi da alxaali ruuxun li diini illahi dil jalaali wa wa jismuhu lislaamu wal ixsaanu libaasuhu alladi bihi loolu mënta ñàkk ab julit faw bu nekkoon jëmm la faw mu am ruux ruux gi moy ngëm ngëm yàlla waaw mooy yàlla mooy imaan faw mu am jëmm yitam ju nit ñi gis te mooy jaamu yàlla yi jaamu yi def nga di ko def niñ koy defee ñetel bi nag mooy nga solal ko mbubb nag te mooy nga suuturaal jëmm ja mu bañ a rafle diina ju rafle mooy diine joo xam ne tasawuf bokk ci tasawuf mooy taaral ne tasawuf sax ñi ñi ci bokk nii surtout murid yeeg yi da nga koy seetlu day am maanaam dañuy neex a ci moom waaw noonu boo dëkkee ne seen biir ni doo ko doo ko doo ko doo doo ko xam waaye boo gënoon dem feneen ci nga xam ne ñoom ndax war ma ji nga xam ne moom la ñu ak tegg ni am wax dëgg yàlla moom xëy na sax yu bare bari mi ngi soppeeku waaye ba léegi mu ngi des ci ñoom loolu nag lu am solo la ci ci ak njullit fi ne tey boo demee fi ne tey ci réew yi tubaab yi maanaam jee xeeti tasawuf boobu moom lañ moom la tubaab yi ñu gën a dugg fi ne ci la gën a dugg fi ne ñuy dugg ci lislaam ci ñoom fi nañ cëpp ci ci tasawuf ak tariqa yeeg yooyu ci ci jaar waaw buñ ay murit yoo xam ne ña ngi dund murit da gis ñu gaaw leen a sopp am ñoo xam sax dañ leen fekk si bu dee tijaan noonu bu dee xaadir noonu bu dee lu mel ne tey fi ne tey mawlawiya mawlawiya tariqa la bu nekk ca tëkk gis ngeen maanaam ni ñu amee nga xam ne ñëpp ñu bari dañ leen nongul fi ne gis nañ sax ñi nga xam ne duñ ay juddul sax di dellu ci ñoom masalan jëlal diin róom yi masalan nga xam ne damaa gis loo xam dañ dañ ma ko dama ko maanaam président Amérique boo xam ne da am lu mu nettali ci ay waxam te loolu du ko def mukk nag ci koo xam ne moom moom doon ab suuf yi moom ndax ab suuf yi ak bonu maa ñi nga am luñ suuf yi daanaka mënuñoo jëflante keneen moom <laughs> mi ngoog kon jëmmi tasawuf mooy taarub lislaam waaw mooy taarub lislaam mooy jëwharu mbir mi itam maanaam bu amul sa diine ci moom day woyof daanaka maanaam diine ju dëgg ju wér diine xol yoo xam ne xol bi itam eh, wut li ñuy xal bu salim loolu ci tasawuf rek dañ ko mën a amee loolu nag moom la sëñ bi tàmbulee bayit yi moom la tàmbulee kii bi yaakaar naa maanaam mën a nooyam ci bayit yooyu ba ëllëg nu ko ne ne eh, waaw bëggoon na maa indi rek loo xam ne lu am solo la te mooy jëmmi xam-xam boo gis xam nga li ñuy wax ne tasawu xam-xam la xam boo gis dafa fukk yoo xam ni faaw mu am ko ñu doog ko tuddee xam-xam waaye loolu damaa ragal ne bu ko tàmbulee du du du jeex. duñ ko buñ ko tamalé du mëna mat te yu am solo la motax mëna ñu bay bi di ñëw nu dugg ci yi nga xamné moy moy moy moy mabadi yo mabaadi fukk lañ yo xam motax ñu xam li xam-xam la moy li waji wax ci beydu ci beydi ne inna mabaadiya kulli fannin achara alxaddu walmawduucu summa thamara wa fadluhu wa nisbatun walwaadicu wal ismu listimdaadu xukmu shaarica masailun wal baadu bil baadi iktafa wa man daral jamia hada sharafa maanaam fukk yooyu faw mu nekk mu am xadd mooy ñu xamle ko dégg nga faw mu am mawdo mooy ci lan lay wax faw mu am samara mooy lan lay jur faw itam ngëneelam itam ñu xam lan maanaam lii lan mooy ngëneelam lan lay jariñ dëgg-dëgg faw mu am nisba mooy fuñ ko askan faw moo am itam ki ko kan moo ko teg xam-xam bi kan moo ko sos kan moo ko tëral kan moo ko xamle ci kan la bàyyi ko dëgg-dëgg xam-xam yëpp am na am na ñii daanaka lu ko amul yoo amul yi ñu wax nag daanaka du xam-xam noonu lañ ko xamee euh, walismu maanaam faaw moo aw tur listim daan mooy faw ñu am fuñ ko balaloo maanaam foo xam ne fale moo ay source am moo ay delluwaayam xukmu eh, saaria mooy saaria mooy sunu borom tabaraka taala ci alxuraan wala sunu yonent bi ban atte la ko jox maanaam ban atte la la am maanaam jàng ko xam-xam boobee ndax farata la wala dañ ko sopp wala boog dafa dagan rek nga ne bu la neexee jàng bu la neexee fee mi ngoog eh, masa ay mas masala yooyu noonu yi ma wax ni daanaka moom incha allah bii di nu gën ñu gën cee nu gën cee nu gën cee taxaw keroog sëñ sëñ Ousmane mi mel ne am na laaj bu mu laajoon ci ci xadiisu eh, fi ayaami dahrikum ala inna lillahi fi ayaami dahrikum la nafaxaat yaakaar moom moom waaw boobu nag man li ci seetlu mooy xadis bi xadis bu am la bu wér la itam ci lima ma jàpp <coughs> bu wér la itam ci lima ma jàpp برم هيثمي ما مخن ابن حجر الهيثمي دفن تير بو أم سولو جي حديث بو خبني يوم دلو إبريلة موي مجمع مجمع الزوائد مجمع الزوائد ودلنا جي بنت بو خبني دكتو دي باب التعرض لنفحات رحمة الله عندنا كو جي تم وخني حديث مو حديث سيدنا محمد بن مسلمة مو وخني يونتبي صلى الله عليه وسلم مو وخني inna li rabbikum fi ayaami dahrikum nafaxaatin fa taarradu laha laalla ahadakum an yusibahu minha nafaxatun laa yashqa baadaha abadan mooy yàlla am na ay nafaxaat yoo xam ni da koy am ci jamono yi am na jamono yoo xam daal da ngeen di taataan maanaam nongu suñu borom ak leeru suñu borom ak yéen demee daa am jamono yoo xam ne jëf ci lay ci lay gën a nangu nga xam ne boo jëfee benn ñu fay la ci lu ëpp lañ daa fay ku jëfoon loole loolu am na xadis yu bari yu koy tegtale ci biir masalan koor weeru koor ku xam na ne julli farata ci biir weeru koor bokkut ak nga julli ko ci geneen ki loolu am na xadis yu bari sax na ay riwaayaat yu bari moo moo ci doon yoo xam ne am na ci xadis yu ñu sikk euh, yëpp bu dee leeltu xadar moom daa daa leer moom moom leeltu xadar moom gis nga alxuraan a ci wàcc xayru min fi shahrin kon am na bis yoo xam ne wuute na loolu am na ci lépp am na ci jamono ji masalan am na jamono yoo xam ne dañoo wute masalan bisu arafa wute nak bis budul dul moom xam nga yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci yu bare bare bare ndax dañ ci nongu ñaan ak yeneen ak yeneen ak yeneen mi ngoog am na nag ci ci ci bis yi am na ci dëkk yi masalan màkk ak madina xam nga ne masalan tey màkkal mu makkatal mukarrama boo fa jullee sa genn julli mi ngi tolloog juróom benn téeméeri junni julli xam nga bokkut ak sama sama suñu pàkk bi sama mbaar mi xam nga ne wuute wuute nañ xam nga maanaam bërëb yi da yàlla da daa gëralante ci yëpp nit ñi itam noonu la am na nit ñoo xam ne masalan masalan am na jëmm joo xam ne boo ko xoolee doo doo lakk doo dem sawara <laughs> loolu yonente bi moo ko wax mi xadis Tirmisi bi wax ne laa tamassun naaru musliman ra'aani aw ra'a man ra'aani yoon yonente bi moo ko wax de maanaam bépp jullit boo xam ne gis na ma sawara du ko lakk mukk moom laa tamassu naar musliman ra'aani aw ra'a man ra'aani loolu mi ngi si mi ngi si sunan Tirmisi mu wax ca ne xasanun garib yaakaar naa la wax garib nag mooy xadisu ahad la li ma koy waxee rek xasan bi itam imaamu Tirmisi moo njëkk teqale diggante saxiix ak xasan ña ko jiitu da woo wax ay xasan ay buxaari ñu moom moo moo moo moo xasan xasan daanaka mooy saxiix rek daanaka mi kon <coughs> eh, borom haythami ci majmau zawaay dafa wax ne xadis bi tabaraani moo ko nettali ci al awsat ak al kabir mojamul kabir ak mojamul awsat ci la ko nettali ñaar yi bu ci nettali na ko ca wax ne nag am na ci ñoo xam ni xam naa leen ci ñi nga xam ne ñoo nettali xadis bi waaye am na ñoo xam ne xawuma leen wax na ñi ma ci xam ñëpp nag ñu wer lañ moom léegi ñim ci xamut it <coughs> ci xamut it fi ne ginnaaw bi am na yeneen riwaayaat yoo xam ne xam nañ leen ci masalan makaarimul axlaaq bu xaraayit yi nettali na ca euh, xadis boobu ci jaare ci sayidna abu hurayrata radiallahu anhu marfuan ila rasulillahi sallallahu waaye booba tudd nañ ñi nga xam ne ñoom lañ tudd ci ci ci fii nii ki koy ki koy nettali dafa tuddul ñi mujj ñi ñi ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoo jëlee ci muhammadul maslamata ñoom la tudd léegi nag beneen riwaaya bee nag tudd nañ leen fa te xam nañ leen ñoom ñu ñu ñu wér mi ngoog yaakaar naa loolu doy na ci moo Mu'jamul Kabir boo fa demee indi na sanad ba sanad bu gudd la maanaam mujj ga nag dafa wax ne dafa wax ne ba mu waxee ne eh, alxasanu ibnu saalih ibnu abil aswad dafa wax ne moom moo wax ne seyxun yukk naa aba muhammad benn waay boo xam dañ ko dàkkantale abu muhammad daal moo nettali xam nga loolu ñooñu xam nga kooku Eh, ibnu hajar alhaytami mënu koo xam ndax benn bu ñuy dàkkantele abu muhammad abu muhammad moom it nee na kak ko net benn benn benn góor la goo xam ne ñu ngi koy wax almuhajir nekkoon ci yenn jàkk foofu la dajeeg moom mu net li ko xam kooku ba tey mënu mënu ko xam eh, mi ngoog moo jële ci kii waaye ñooñu ba tey ci yeneen riwayat kon xadis bi tabaraani nettali na ko ci ay bërëb yu wuute ni ko waxee ñi ko jële ci muhammadul masna itam bari na من أن آه، تبراني وحنا معاوية بن قرة جلنا كتي محمد بن مسلمة جلال الدين شيوتي تم في جامع الأحاديث أك جامع الجوامع يب نتنا كتي أيانم يوته وحنا ابن النجار جلنا كتي محمد بن مسلمة ما نيات حديث بي آه، حديث ابن محمد بن مسلمة تقول آه، الحكيم بتم الترمذي محمد أبو حديث بمقلة حكيم الترمذي صوفي لا محدث بمقلة مقلة gis nga moom it nettali na ko jële nettali na xadis bi itam mi ngoog kon ñi ko nettali bari nañ alxakim ak ibnu abi dunya ak albayhaqi abu nuaym fi lxilyati ibnu asakir jële ci anas sayidna malik ak albayhaqi ci shu'abul iman ak ibnu asakir ba tey jële ko ci abu hurayra masalan loolu am lu bari lu ma ci lu ma ci lu ma ci indi mi ngoog léegi nag kon ñu ko ñu ko nettali dañoo wute waaye gàttal gi daal mooy xadis la boo xam ne daal noonu jàpp nañ ko daal <laughs> xam nga xadis nag moom li ci am joojo mooy léeg-léeg dafa bëri xadis yoo xam ne tey eh, tey masalan tey mi ngi aji ci école yi ak ak bërëb yi am na ñoo xam ne am na xadis yoo xam ne lu wér-wér duñ ko jàpp bëgg moom ndax an an dëpp wut ak seen seen mazhab <laughs> loolu la am na ñoo xam nag moom moom moom xadis bi tey mën naa bañ a wér waaye masalan tey moom moom day dëpp ak ñoom léegi nag bu dee ci mutasawi fee ñoom fi ñu wuteeg ñoom nag mooy mutasawi fee ñoom dañoo am beneen bunt nag muy kasfu saxiix fii da am na xadis yoo xam ñëpp dañ ko wéradil te bu nee wax ne xadis bi xadis bu wér la dara gën ko wér sax masalan xadisu awaliyati nuuri nuuri rasulillahi sallallahu alayhi wax ne bi ko Seydina Jaabir laajee lan lan la yàlla njëkk bind mu ne ko nuura nabi yi ka yaa Jaabir boobu moom boo demee ci waroon ko xam yi xadis yëpp yëpp ne mawdu lañ naan ñi naan mawdu ñi ne waaye mutasawif bi dañ ne hada <laughs> mos naa ko laaj Cheikh Mouhamadou Daam Misk mu ne ma xadis bi am na doon fa waaye nag saxa kasfan mu ne ma saxa kasfan te dara gën ko wér nag maanaam nit yàlla yëpp ko nangu te ñoom dañuy dañuy mën a laaj yonente bi ndax yaa wax lii mu leen maa ko wax xam nga lool loolu loolu du ñëpp ko mën te loolu doon dañ ko gëm te mu wér loolu sax nag wala nag hadis bu, lool loolu am na ci bi da tey ma gis man am na xadis yoo xam ne léeg day gis ne ñëpp dañ ko wér di ni masan xadis ci moom ba gën a wér fi ne ay nattukaay lañ rek mu jaar ca ba jàll fi ne mën na caa jaar ba jàll te fekk wérul masalan am na Amna yoo xam ne mën nañ ne wér na ndax jaaral nañ ko ci nattukaay yi mu jàll waaye loolu fi ne tekkiwut ne wér na ci cosaan fi ne mën naa bañ fi ne am jaar xadis yoo xam nañ ko cay jaarale te te du ca jàll ñu ne kon kon kon kon kon wérut da fekk wir na masalan yonte be ko wax ne tay bo gise ci masalik ci mujj amna <clears throat> am na xani man dama ko japp lol japp gu wiram itam ndax dama gis seigne bi nettali ko te wax ne wir na itam waaye bo demé ci nettalikati hadith bi hadith bi munziri indi ci tarxib ak tarhib te te te te seigne bi indi ko ci mujj ki ba tey wax ci walu selal manam bo jëfee jëf yi bu demé ba ci asman sangam nangam lol seigne bi nako ci yu bare bari te amna fo xam ne wax ni hadith bu la foofu nag laa ko jàppee xam ne <laughs> maanaam loolu it nag defuma ko ci kii nii waaye masalan bu njëlbeen gi bi ñu bi ñuy tàmbalee bind xadis yi ak xool ilmul jarxi wa taadil ci moom boo xamee njëlbeen gi tam da xam ne maanaam noonu lii nu jàpp dara gënu ko cee wër fi ne maanaam da caa laal ci njëlbeen ga fi ne ibnu xajar al asqalaani wax na ci njëlbeenu tahdib tahdibu tahdib yaakaar naa mas naa ko wax bi sax wax ne booba kii la wax ne wax ne téeréem bu mag bi waaye tahzib ci la ne tahzibu tahzib ci la wax ni ñoom moom li ko jaaxal dëgg-dëgg nga xam ne yàgg na ko jeexal moom jaaxal moom donte wutal na ko lay mooy tawsiquhum an naasibiya wa tawhiinuhum al al al al chiiya mutlaqan mooy chii moom fuñ ko fuñ ko waxee rek dañ koy dàq moom wérul te am na maanaam chii yi du ñëpp wéru diwul fi ne am na ñoo xam ne ay kilifa lañu chii jaafaru am na ñoo xam ne duñ ko jëlal xadis yaa ngi dégg te naasib yi koo xam ne moom day xas sayidna aliyu di ci wax am na ci nettalikat xaddis yi bu maanaam bañ mu gën a gudd waaye moom naa na ci indi misaal ñoo xam ni dañuy wax ne li yonent bi wax sayidna sayidna ali ne ko anta minni bi mansilati haruna min moussa moom da wax ne ma nettalikat yi jubal waaye bi mansilati qaaruna min moussa la <laughs> te kooku ci jarx wa taadil dañ ko jàppe siqa maanaam ñoom ñëpp zahabeeg ñu ñëpp taw siq ko te yonente bi wir na ne yonente bi waxoon na seydina ali ne ko laa yuhibuka illa mumin wala yubgiduka illa munafiq seet nga wax maanaam yonente seydina ali moom ku ko bañ naafiq nga moom ko kenn wut a jël xadisam ku bañ saxaaba yi itam seydina abubakar yooyu kooku naafiq la kenn wut a jël xadisam maanaam loolu dañ ko waroon yemale laa bëgg wax waaye jël benn ba ñuy tadwin moom loolu am na jafe-jafe am na moo tax nag man moom lii motu sayu fa yi jàpp nii daanaka foofu laate maanaam xadis moom danaa ci yëngutu nii rek waaye lu ma gis sëñ bi wax ko nii loolu moom moom dama koy jàppe lu dëgër dëgër moom ndax moom ndax ndax yu bare bëri daal teewul nag moom dinaa boo ma laajee comme nii ma ci gaa yi wax rek yu <laughs> ko xadis boobu daal kon loolu ci am alxakimu tirmisi al iraqi bi muy taxrij ahadisu ihya ihya ulumuddin wax na ne xakimu tirmisi tirmisi nett na ko ci annawaadir tabaraani nekk nett na ko ci awsat ibnu abdil ibnu abdil bar nett na ko ci tamhid xadisu anas ibnu abi dunia itam nett na ko ci fi kitaabil faraj xadisu abi hurayra mi ngoog boroom kashful xafa itam al ajaluuni wax na ne ibnu xajar al asqalaani ca ahadisu musnadil firdaws Eh, askan askan maanaam maanaam maanaam wax na ne ma nga maanaam eh, tudd na ko fa dégg nga mi ngoog borom asma wa sifaat itam bay xaqi indi na ko itam ci riwaay yi nag ay riwaayaat yu bëree bëri la yoo xam ni masan jafe-jafe fi mu am mooy albani moom moom ñu doon wax keroog dafa am fu mu ko wéral am fu ko wéra deen loolu moo ci indi lënt mépp daanaka nag ñu naan wér na wér am fu ko wéral am fu mu ko wéra déwul am fu wax ne wérut albani nag loolu da koy def lu bare bare am naa waajuma gis yoo xam ne da ci bin téere boo xam ne ñetti mujallal la xasanu bnu ali saqaaf tudde ko tanaqudatul albani waadixaat nga xam ne dañëw fii ne wér na fee mu dem fa ne wérut maanaam nga xam ne ñetti mujallal loolu jël mu mi ngi ci internet fi ne mën nga ko xool waaye boo ko xoolee albani daanaka doo mën a moo tax keroog man la man du ma dellu ci moom daal dinaa ko yëral nag waaye dellu ci moom def ko delluwaay ni defuma ko mi ngoog nag ñu wuuteeg ñoom yàlla mi ngoog naa mas naa taxaw laaj wala kii waaw waaw waaw waaw maanaam yonente bi ndax dañ koy gaaral jëfi jëfi jëfi jëfi jullit ñi waaw loolu moom ba tey am na xadis boo koy tegtale boo xam ni Hmm, al imaamul bazaar moo ko nettali ci musnadul bazaar mooy bi wax ne xayaat yi xayrun lakum tuxaddisuuna wa nuxaddisu lakum wa mamaati wala wa wafaati xayrun lakum tuaradu alaya amaalukum fa maa raaytu min xayrin xamidtullaha alayhi wa maa raaytu min charrin istagfartullaha alayhi xadis boobu itam momit li ma waxoon ci bi mo ci xawane a ne ma am na ñu jàpp ne hadith mursal la ñu jël ko ci sayyidna abdul ibn Abbas waye du bobu riwaya dafa bari ay riwayat momit motax hadith bi masalan borom subulul huda muy alxaafidu shami tere bu am solo ci siira waxna ne ibnu sa'd nettali na ko ak ismailul qaadi nettali nañ ko bi sanadin rijaaluhu siqaat sanad boo xam ne ñi ci ne ñëpp a wér ñëpp a wóor jële ko ci bakr ibn abdullahi almazani mursalan mi ngoog boroom majmau zawaid bi mu wax it wa man wa man baaxul fawaid mooy ibnu xajar haysami itam da ko wutal buntu moom boo xam ne indi na ca yeneen i xadis yu bokkut ak bi man xadis bi dafa am ay riwaayaat xayaati xayrun lakum wa nangam wa wafaati xayrun lakum boobu indi na ko ci wax ne rawahu albazaaru wa rijaaluhu rijaalu saxiix loolu la ci borom majmau majmau alfawaid majmau zawaid bokk wa man baaxul fawaid mooy ibnu xajar xaysami loolu la ci wax wax ne ñi ko net li ñëpp ñu wér lañ mi ngoog kon xadis bi dafa am nag ay riwaayaat yoo xam ne maanaam dañ ko cee net li te wérut loolu moo ci indi jafe-jafe mel na biñ nettalee jële ci Seydina Anas ibnu Malik waaye dafa am yeneen riwaayaat yu bare bari lu mel ne bi jaar ci Bakr ibnu Abdullahi al booba euh, xadis bu wér la mursalan waaye am na boo xam ne sax marfon boo demee ci sarxul mawaahibul laduniya bu Qastalaani boobu leeral na ci lu bare bari wax ne Bazaar nettali na ko bi sanadin jayyidin ci jële ko ca Seydina Abdul Masud jëli ko Seydina Abdul Masud rafaahu marfuan ci lafzu xayaati xayrun lakum mawaati xayrun lakum maanaam dafa dañ ko nettali benn dafa am jamono maanaam dafa am ay riwaayaat yoo xam ni mursal la mursal mooy koo xam ne taabii bi tuddul saxaabi bi te du mursal yëpp lañ lañ la ñuy kii fi ne mursal bu maliki yi dañ ko nangu fi ne xadis mursal bu fekkee ki ko wax kuñu ku wóor la fi ne maliki yëpp nangu nañ ko ak xanafi yi imam Shaafi rek moo ci am moo ko dut nangu te moom da cee amu seete masalan bu dee mursal boo xam ne dafa jaar ci Saïd ibnul Musayyib da koy nangu masalan te Saïd ibnul Musayyib nettal na ci xadis boo xam ni dafa wax ne laysa min yawmin illa wa tu'radu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam amalu ummatihi xudwatan wa asiyan fa yacrifuhum bi siimaahum bi siimaahum wa amaalahum wala wa amaalihim fa yaxmadullaha wa yastaxfiruhu lahum booba Saïd ibnul Musayyib moo ko nettali Abdullah ibn Mubarak moo ko li jëlee ci Saïd ibn Musayyib di ab taabi'i boo xam ni waxul ne kan moo waxul kan moo ko nettali ci saxaaba yi waaye xadis bi mel noonu fi ne imaamu yi da koy nangu ci moom mursal la waaye Saïd Saïd ibn Musayyib dañ ko xam muy ku wér koo xam ne amul yenn kii te itam dafa amaat yeneen i riwaayaat yi tam yoo xam ne moo koy dëggalaat kon xadis xadis bi loolu loolu moo ci am mi ngoog loolu daal moo ci mooy gàttal gi eh, mi nga loolu mooy loolu mooy gàttal gi waaw ah, ak ñeneen ak ñeneen day dem yi netlu ne ko ak ñeneen ak ñeneen bismillah kuma gis ah déedéet loolu ci jamonoom la ko wax ci jamonoom la ko wax ba muy ba muy ah, loolu jamonoom la loolu bi ginnaaw faatoo itam boo gisee ci lu yàq ci lu ay neraw ay ko kooku doo dem sa war a mukk bi moom boo gis xam nga yonente bi ci moom dafay jugul maanaam faaw nga jàpp ne yonente day dund ana boo gëmee ne bi faatu na comme bennaay bu faatu nii rek loolu sëñ bi foofu la sikk ne loolu du loolu maanaam sa pas-pas ci mo moo am jafe-jafe maanaam yonente bi ci moom daa daa faatuwul comme ni gars yi faatoo <laughs> dégg nga de yow alxuraan lan lañ jàng la wax ne wala taxsibanna alladina qutilu fi am amwaatan loolu alxuraan na ko wax maanaam bu leen jortu mukk defaat nañ am na feneen fi wax ne wala taqulu li may yuqtalu fi sabilillahi amwaat maanaam bu leen wax mukk ne amwaat ah yonte bi sëñ bi nga xam ne moom mooy maa alladina anama allahu alayhim min annabiyina wa siddiqina wa shuhada yi shuhada yi sax bokkut ak siddiqini fi ne masalan doog a ñëw ambiyaw yi ñëw ñëw seen ginnaaw shuhada te shuhada sun borom wax ne wala taqulu li yuqtalu fi sabili amwal wala tahsibanna alladhina qutilu fi sabili amwal mi ngok kon mi ngok ah, bismillah lolu bo lo bëggoon xow xaw lan moo waraloon kon bi yeneen hmm. Di sallallahu Abu Bakar di yëftu Medina def ba xaw ko day xam nga ba tey bu la waxee ne yonte bi ma ngay dund ca biir eh, maanaam xabroom bu sell ba wala fa mu ne dunduk barsax bukkut ak maanaam daa jeexlu fii ci adduna bii nii jeex maanaam maanaam dundam gee jeex na ci adduna bi waaye tekkiwul ne dafa faatu koo xam ne tey maanaam nekkatoo aslan fanaaw koo xam ne maanaam maanaam sa dara amatul nii xam nga loolu tekkiwu ko ma nga fam ne yaa ngi dégg maanaam génn na adduna mooy li ñuy wax noonu génn adduna génn adduna waaye tekkiwul ne masalan maanaam yonte bi dafa dafa dafa amatul ci boobu nga xam tey xamatul dara ci li xew yëgatul nekkatul loolu xam nga teggewu ginnaaw moom nee na fi na tey li muy wax ne tuaradu alay amalukum maanaam li ngeen di jëf dañ ko koy wan yaa ngi dégg te loolu fi ne tey boo gëdee kitaabu ruux bu bu ibnu qayim inna ci yu bare bari même bu dul yonente bi sax ñeneen ñu seesuwaan ñi muminoon ñi sax am na ñoo xam ne da xam yow li seen waa kër di jëf dañ leen dañ dañ leen ko dañ leen koy dañ leen koy wan masalan bayhaqi imam al bayhaqi nettali leena ci al iman ne ittaqullaha fi ikhwanikum min ahli al qubur fa inna amalakum tu'radu alayhim manam yéen seen wa kër nit ko ne bu faato masalan wa këram la jëf léeg-léeg dañ ko koy wan waxuma la yonente bi sallallahu alayhi wasallam sallam léegi nag Seydina Aboubacar booba lam doon wax mooy kii Seydina Omar dafa wax ne ku wax ne faatu na ma ma caw la jeesi maanaam bu kenn wax ne faatu na mu xamal leen ne nag li yàlla tuddoon ci moom wax ne innaka mayitun wa innahum mayitun loolu moom am na loolu la Seydina Aboubacar wax rek waaye Seydina Aboubacar moom moom moom moom bokkul ci ñi jàppoon ne maanaam yonte bi dem na dem na nga xam ne xamatul dara dundatul mel ne masalan tey waaw loolu moom xam nga ne loolu demewul noonu daal maanaam lool ku xamul dara ci mbirum ruux ak yowmal xiyaam ak mbirum tasawuf nii yaa yaa yaa ko xam masalan yonte bi am na ñu koy gis wax ma lu yonte waaye Sëriñ Tuubaa mu baax mi ak kii am na ñu leen di gis gis goo xam ne yow mi ko gis moom yow bu ëtt na sépp sépp maasoon weddi ko yow moom da nga doo sikk na Sëriñ nga gis ah na sépp di ko weddi yow du la wàññi ndax yow ñoom ñoom maanaam soxalu leen li nga gis ni soxalu leen yow la soxal moom yaa ko wër di wax nag moom yaa ko di wax yaa ko wër di nettali waaye yow li nga gis moom doo ko sikk am na waaju boo xam ne yegul dara benn waay boo xam ne xam naa ko bu xam na itam ak ragal yàlla yàlla dogal nu daje ma dajeeg moom boo maag mbooloo ànd sax mu ne nu tey ci suba bi may def samay sama sama wér sëñ sëñ Tuubaa gis naa ko mu ñëw di wax ak man ci nangam ak nangam ak nangam ak <laughs> nangam te waaja man gëm naa la ma wax <laughs> gëm naa ko bu wér-wér ndax xam naa ne kooka maanaam xam naa ci ak ragal yàlla ak dëdd adduna goo xam ni daray daray maanaam ciy mel na nekkul ci yow léegi kooka nag yow boo ñëwee ne ko gisoo ko yow <laughs> xam la maanaam ñoom dund goge maanaam dund adduna gii ni moom kon mu ci la faatu am faatu itam tekkiwul ni mana faatu tekkiwul maanaam jeex wala dem wala naax saay wala do amati loolu faatu tekkiwul lool faatu tuxu la rek jóge ci bërëb bi dem ci beneen bërëb am na ñoo xam ne bu ñu xasee jóge adduna mënuñoo amaat relation ak adduna bii nu jóge woon waaye am na ñoo xam ne dañoo weesu foofu nga xam mën am relation ak ak ak adduna bi di xam am loolu ay darajaat lay itam yoo xam ni ambiyaw yi ñoo ci gën a kawe rawatina yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo gën a kawe ci yooyu yëpp te Sëñ Tuubaa masalan sëñ masalan li ma bëgg li lu bare bare fi ne tey nit koo xam ni mësta wax lu amut maa nit ku dëggu xam ni mësta wax lu amut masalan Cheikh Abdourahmane xam ne nun ban juddoo ba léegi man nii laa ko xam ci mbaax bu xëyoon suba ne moom masalan gis naa sëñ Tuubaa wala gis naa yonente bi maanaam man boo na sépp maasoon bu ko weddi itam du ma du ma man dama koy gëm moom ndax nit ku dul fen kooku ko la Cheikh Tidiane Gueye da ko daa wax ndeysaan rahmatullahi alayhi daa wax ne nit ku dul fen xujja bu taxawoon fii nenu gayndee ngi ñëw ci biti kenn dana toog na ah xëy na <laughs> da ngay seet noo daawee ak noo lijjanti masan day loolu nag dafa am lu mat juróom fukki nit lu ko wara lu këpp ñoo xam dañ leen a xam tàmbale ko Sëriñ Tuubaa bu baax mi ni gis na rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci dul ay nelaw daama rasulullahi nusba ayni loolu bu toon benn nas te dafa am ay nusoos sax nag dafa am ay nusoos yu koy wax yu wax ne mën na ne ci Buxaari bi mu wax ne laa yatamasalu seytaanu bi eh, ku ma gis na xam ne man la gis ndax man laa yatamasalu seytaanu bi ak laa yata zayya bi riwaayaat yu bare bare moo ci motax kon lo rek non lañ ko déggee tekkiwul ne fi nekkat comme ni mu fi nekke won ni di kii mission jeex na fi waaye nak manam dé ci boobu rek wul manam jeex wala nax say wala ñàkkatee dund ci genn anam lol tekkiwu wuko ndax gis nga hadith bu wër ci bukhari ak muslim ak yépp hadith bu wër wax né manam buñ suulee nit ba bay dem day dégg xaraun xaraun ali maanaam seen tëb bi dal li da koy dégg xam nga kon bu fekkee faatu na ba jeexlu na ci mbir kon loolu lu tax déggee ni daal yi tepp tepp ak ni ñu doxee ni mi ngoog <laughs> du loolu nga laaj am des na <laughs> mi ngoog bismilla waaw mam jën waxum lëkkum boobu de ay boo xam ne borom tabaraka wa taala moo ko wax doomu aadama yi xamal leen ne <clears throat> yéen seytaane dama ko dàq dama ko dàq ngir yéen ngeen wëlbatiku nag topp ko ngeen wëlbatiku topp ko bàyyi ma fi man yàlla <laughs> ay ay ay ay bu bu doy war la man seytaane suñ borom da da da da da da da ko mere ngir lam ko mere mooy da ko sujóotloo ci doomu aadama seedaan lank iblis xam nga suñu borom da ko dàq lam ko dàq weesuwul ne ko su jootaral eh, sayidna adama su joot boo xam ne su jootu jox cër la ak wormaal ak demee seetaane lank iblis lak bam lànkee nag suñu borom dàq ko dàq ko ci yërmaanem génne ko waaye nag iblis dafa ñaan suñu borom yàlla bàyyi ko fi ngir mu mën fayu léegi nag sun borom it ci mbaaxam rek mu may ko mu nekk fi léegi nag iblis nag moom bi ko sun borom dàqee nag dafa nekkal ci biir doomu aadama yi doomu aadama fi ne iblis dafa am ay sëti boppam ak kii kii doomu aadama wutal la seetaane bu nekk yow di la yàqal seetaane boobu li muy def mooy li yàlla bëgg lay fexe ba yow doo def doo def سن بروم نك فاول لا يد نك تي القران واخني واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربي افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بيس للظالمين بدلا manam yen dama ko dak ngir yen mara yen nanguta jox cer mo tax mu dak ngeen wëlbati ko nag dem topp ko moom bàyyi bàyyi ko fi man yàlla xam nga loolu <laughs> loolu afatattaxiduunahu wa durriyatahu awliyaa min duuni wa hum lakum adu te moom yéen a ngi ko topp waaye séenum noonu la maanaam benn noonu la am muy muy muy seytaane mi ngokk na ne mooy maanaam ay alxuraan nag man ma waxoon du ma du ma alxuraan waaye waaye maanaam moo da léegi na lañ ci mën a déggee wallahu taala alam ibnu xasm zahiri daawud nag daa mel ne moo ko moo ci jiitu daawud zahiri moo jiit ibnu xasm nag moo gën a tasaare moom bin na ci lu bare bare bëri waaw mi nga waaw xam mas naa taxaw أن يونس صلى الله عليه وسلم واخني دا دو دنگ سنام اك سنه الخلفاء الراشدين أن بعده لولو مانام ني بار دنج جاوال دو نياري سنه بن سنه لا مانام خلفاء امو ني سنه نيوم سنه سي كين كو مو رسول الله صلى أن عليه وسلم ميل تي القران رسول الله وانا قالوا نعبد الهك واله ابائك خاو لول مان غاني كون نياار يالا سا يالا اك يالا سا باي تفك أن لول بي بن يالا maanaam seen sunna ma mooy sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sunna xulafa rasiduna ñoom am na yu ñu sos ginnaaw yonent bi waaye loolu day dugg ci man sanna fil islami sunnatan xasana maanaam ku sos lu sunna su sunna su su rafet dégg nga fa lahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmi alqiyamati aw kama qaal mu hadisu muslim mi ngoog yaakaar mas naa def ñaan أعوذ بالله من الشيطان بان لكل من له مقول الحمد لله رب العالمين الرحيم أنا وسيلتي هو الرسول بان لكل من له ولاية كوني لخالق البرايا آية الحمد لله الذي صرفني بلطفه عن بدء لسنني أصبره جل على الكتاب وسنة البيداء والصواب أصبره على فرود وسنن ثم على خير الحمى من المنن أستغفر الله الذي يجري الخدا بإذن